ndax xam na ne loo def ci ndigalu say kilifa nga ko defee kon loolu am na solo ci xam gu ngeen xam démb moo tax ngeen def ko diggante ñaari kër yi mbokk yi wax nañ ko sànq li fi am lu rëy lu yaatu la turaaf la boo xam ne sàmm ko warteef la ci ñun ñëpp waaye nag sàmm ko mi ngi tàmbalee ci xam ko ba tey xamuñ ko ànd ak sama warumal sëriñ ministre bi léegi bi muy leeral di wax mbokk yu dox diggante mam maharam bi dox diggante maam alaaji Malick ak sëriñ Touba bokki ci maharam dong ñu bari xamuñ ko bokk nañ ca mbàkki bokk ca ndaam maam maharam mbàkke moo jël soxna suñuy wax soxna joosi Seck ma nga dëkk ci njoosi alaaji Abdou Assis mas naa wax ci nettali ne bi mu ñëwee Touba te sëriñ Mouhamadou Moustapha yebal ko mu dem ndaam nuy ji sëriñ Ndaam Abdourahman Lo dane ko maag sa baay ñaa nga bokk ci njoosi soxna soosu moo fa am ñaari doom Ahmadou Farimata mooy taw mam moom la sancaloon Mbàkke mam maharam mësta dëkk Mbàkke dafay ñëw sanc koo dëkkal fi ab taawam dellu Mbàkke Jolof fa la àdduna fa faatoo fa lañ ko denc rakkam Cerno Farimata moom la tudde mam ma Sàmba Caam mi ko doon jàngal xam-xam jàngal ñu bari ci réew mi Thierno Farimata Samba Thiam la tudd Thierno Farimata moomu moo jur soxna Mati Joosi maam Maharam Farimata Sekk la jële Njoosi am ci Ahmadu Farimata ak Thierno Thierno dellu kër nijaayam jël fa soxna Joosi Sekk am ci soxna Mati Joosi soxna Mati moomu moo jur maam Ousmane Sy mi jur Alaaji Malik radiallahu taala anhu waaye na Farimata moomu it moo jur soxna Xadi Mbakke mi gu maam ngañ Xadi ñang way juru soxna Safiyatu ñang maami xalifa bii teg Ceerno Farimata nag amoon na ko mbokkal bàyyi mu maam Balla Aysa maam Balla Aysa du sëtub maam Maharam mooy caatub maam Maharam bi ñu sancee Mbàkke Bawol ñaari at après ci la gane àdduna maam maaram tudde ko baayam maam maaram muhammadul xayri la tudd baayam di xabibullah bal la wolof fee koy dagg naan xabiballaahi la ñu dagg naan bal la baayam la ko tudde mooy caatu maam maaram mi ngi gane àdduna 1196 ci hijriya ca Mbàkke Jolof maam Cerno Fari maam Balla Aysa moomu moo jur Mamour Anta Sali way juru Serigne Touba waaye ñu bàyyi xelit ne maam Maharam moomu moo jur Ahmadou Soxna Boussa mu jur maam Astawaalo mu jur Soxna Jaara Boussa way juru Serigne Touba waaye ñu bokkaat feneen nag foo xam ne ñu bari xamuñ ko tamit lu mat a leeral ndax ak mbokk day lu am solo dem ba bintaloo doomi muxtaarum ndaam daam isa jikko nga xam ne moo meññ ñi sant loo ñëpp dem ba bintaloo moo jur mbërgu sene ba jur njaay sene ba sene ba gay mooy seen ndey ab jaafuñ la mbërgu sene ba moo jur balla mbërgu mu jur dàmburi sàmb mu jur seliloo seliloo jur anta seli mu jur maam war anta seli njaay sene ba mi bokk ak mbërgu sene ba ndey ak bay moo jur aram loo yaayam di kumba caam aram loo jur dara man de wele dara man jur ba këri dem ba këri wele ba këri jur moom fàddu wele kon ñoom ci meen ak ci geñu lañ bokkee loolu nit ñi dañ ko war a xam turaas la mag ñi xamoon ko moo tax ñu doon ko dund responsabilité bi gën a rëy ci njaboot gi mooy umpule seen seen démb waruñoo toog kenn den ko waxal waruñoo toog nit di ko jaawale ci seen kanam lu ñu war a xam la mag ñi dañ koo xamoon di ko dund di ko sàmm ci xeeti sàmm yépp di nemmikonte di siyaarante lu baax lu ne ñu di ko waxante am na ay hadaya yoo xam ne sëriñ Abdou dafa indi wàlle na ko kenn ku bokk ci sëriñ Abdul Xadim koo xam ne Ceerno Farimata mii nga xam ne ci la maam alaaj Malik soqi ko ndax Ceerno Farimata Ahmadou Joosi ak Mati Joosi ñoo bokk ndey ak bay Ahmadou Joosi moomu nag moo jur daamu say nabu mu jur say ibra fari mu jur sëriñ Mamor say mi taalif téere yi di ci leeral askanu mbàkke mbokk yi ci bokk yépp te sëñ Hadi Touré ñoom maam xale ma jaxate ñëpp a ngi ci loolu mbokk yi lu ñu war a xam la ndax lan taallamu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arhamakum ndigal la du rek waxkati lu baax yi lañ ko bàyyi ñu di ko wax dañ ko war a jàng di ko dund ndax wattaqullaha alladi tasaaluuna bi wal arham loolu ñu bàyyi ko xel kon loolu di am solo loo xam ne Serigne Touba nag ki la yaroon ak njabootam da leen yaroon ci fonk mbokk ak di ko dundal léegi sëriñ Mokhtar Kébé ñu ngi koy sant ci kàddu gu am solo gi delloo si nit ñi ci tawxiidul ci tawxiidul kalima taxta kalimati tawxiid lu am solo la ci biir waxam wax na bay woowu sëriñ bi waxoon ne wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah waaye moo waxoon nit moom Serigne Touba ne almuminuuna ixwati walmuminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat way gëm yàlla yépp samay bokk lañ góor ñi ak jigéen ñi sama dund gi nag fas naa yéene mu nekk aw yiw ñeel ñëpp moom mooy koo xam ne mësta xàmmee ñoñam ak jàmbur buy ñaan ñëpp lay ñaanal irham jamia al wara ya radaa buy ñaan ñëpp lay ñaanal waccal jamia al muslimina di ñaan yàlla musal ñëpp sàmm ñëpp foofu la ab jullit war a ne ci am njàngaleem na ci lu ñu waxoon nit lii sëriñ Moxtaar doon wax léegi ku jàpp na yaa féete kaw kenn yaa tiim kenn yaa kenn sëriñ Tuubaa noonu na fa kullu man yanzuru fawqahul kilaab fal kalbu xayru minhu duna lirtiyaab bu la kël bu rombee nga jàpp ne yaa ko gën keroog kël boo la feeti kaw ndax mbindeefum yàlla la manqué la ko yàlla sant yow nekkoo ci li yàlla sant yaa ngi def leneen yooyu ndono lu ñu war a jël la kër Serigne Touba moomuñ ko li El Hadj Malick tënk waa kër El Hadj Malick moomuñ ko ndonol diine la kon kilifa yi nañ soññ nit ñi di ko jàng di ko xam ba yu ñu dem dundal xol yi ci xamal leen seen maam yi diine yi fi nekkoon ba samp fi diine mu dëgër dara mënu koo yàq coow yu bari rek dana am waaye mënu su ko yàq ndax liggéey bi ko liggéey moo dëgër waaye nag sàmm ko warteef la masuuliya bi sëñ Moxtaar doon wax ak amaana ndono lii ci la bokk. loolu nag Serigne Touba yaroon na ci njabootam ba fu lu baax baaxee nangu nañ lu baax la Serigne Touba daa waxoon ne fu ngeen romb ñaan gu baax gu waaju baax daf jël leen booleeg li ma jox fa hiya nuurun ala nuur fa hiya nuurun ala moo taxoon mu ne fukk lu wër dañu yoridul mu da kon lu baax lu ne ci keppaaram tey ji sëriñ bi lim ne léegi ci njaboot ñi fi teew sëti sëriñ Baara Ñang sëriñ Baara Ñang wér du tijaan la yoroon ba ni mu génne àdduna ci Touba di ilimaani Gede wérdu Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane la doon la doon bari na loolu ay taalibe yoo xam ne ci ron Sëriñ Tuubaa lañ nekk ñu yor wérdu xaadir ñu yor wérdu Tijaan Sëriñ Tuubaa dëgëral leen ko bàyyi leen ko xamal leen ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahbida sawaun intama ila al jilaani aw intama li ahmad tijaani id kulluhum qataan ala sawaabi benn mun id kulluhum dalla ala sawaabi loolu lu mat xam la loolu nag njaboot yor nañ fu ñu mës a dégg lu baax nangu ko moo tax gis ngeen ba alaaji Abdou radiyallahu nu génnee àdduna bokk na ca maraas yañ ko defaloon sëriñ Moustapha Saliou ñëw na fii ma ngi ko tàmbulee woon rajulun biyum ni xayaatihi daxikal wara wa bi faqdihi bakati samawaatul ula waaye am na yit am na yit ab jarbaatam mi ngi ci mbooloo mi ànd ak sëriñ Abdou Samad sëriñ Khalil Mbacke doomi sëriñ Moustapha Hafsa waaye yaayam di doomi sëriñ Saalihu Mbakke radiyallaahu anhu ba alaaji Abdou Aziz génne àdduna ci luñ kenn yëgut fii xam na ne maama ma ci diine moo mabbu wa xuqa an yurtha ci la bindoon xasida tàmmulee faqada al bi asriha ahad bi asriha abdal aziz al qarma man fi xubbi rabbi qad bakati zawaaya fii ndakaaru wa xayriha wa kada tawaaifu kaafatan fi qutrina kon di lu am solo yooyu di ay ndono yu ma tee Touba foofu lañ nekk gëm nañ ne ndono yu baax yi fi nekk yëpp alal seen alal la ndax suñu maam ñoo ko liggéeyoon kon nañu jàppalante ci sàmm ko dundal ko moo gën yeneen yi moo tax it xew-xew bi mu amee sëriñ Abdou Samad jenn doomam ci gone yi kuy jàng bi mu ko yëgee da cee yónnee bay di wax ne ilal axi fi jak saawa man jadduhul jaddu taxiyaatu xobbin maa lahu abadan xaddu maam bi mooy maamam ndax mooy su maam di maamam li tayidi xablin mil mahabati xat ataaka bil xubbi min tuuba shaqiqatukum wafdu ala rasihim sibtul xadimi wa shibluhu wa aachiquhu abdu samad man huwa al jundu bi idnin min alqarmi alxalifati muntaqa bi aydihi fiina al amru walxallu walaqdu wa nushhidu raba alarshi anna nuhibukum kama kaana yahwa jaddakum jadduna alfardu adaama lana wa sawfa nadallu wa sawfa tazallu alusrataani ahibatan ashiqaa axdaanan wa in aaqana budu adaama lana xabla alwisaali ila huna wa zahzaha man fi qalbihi al bughdu wal hiqdu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu